الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi damaa foroon benn téere rek di ko jàng xaw ma sax ne téere bi luy wax ci bàyyi nga ma dem ba ci biir ma gis waa ji di wax ne saoudiye wax leen seen borom xam-xam yi bu fekkee xamuñ dara nañ noppi seen xam-xam leerul nañ noppi ndax ñi ngi weddi suufiyanke yi di wax te suufiyanke yi doy na leen seetal ku mel ni Cheikh Ibrahima Niass zaimu tijaaniya bi garbi ifriqiya mu ngi noonu suufiyanke la te mu ngi noonu seen mamlaka bi daf koo respecté woon mu nekk odwu ci rabita bi Faysal respecté ko respecté nañ ko ndax xam nañ mooy kan waaye duhul ne xam-xamam ku ne la koy jox Faysal xam na kuy bàyyi ndax ba mu bëggee nekk buur bàyyi la ñaan loo yàlla ñaanal ma yàlla ma nekk buur màkka bàyyi na ko yéen da ngeen di kontur tijaan yi te man tijaan laa mu nekk su ma yoon nekku ci loolu man buur laa bëgg rek ñaanal ma ko 60 millions la jox bàyyi ku tabee ngi noonu imaam mu ne dafay dugg nekk bàyyi tombeeg jim nga yëng di génn bàyyi ne ko déggal kii li muy wax mu ne ko wax mu ne ko def ni xaalis bi ma buur màkk jox naa jox genn wàll gi mu defal ko ci ay société ay action yooyu dana ma garantir dépasse bu ma fiy jógee danaa bàyyil sama njaboot gi xaalis imaam ne ah bàyyi loolu dafa mel ni xalaat bu defal la de mu ne bàyyi ne ko man waxuma loolu man li ma wax mooy lu ma am jox ko yàlla lu ma soxla laaj ko yàlla daf daan am ay million xëy am dépasse ma ne xam nga Faysal xam na baay lu tax Baye jox ko tariqa tijaan nag ku nekk li nga moom la lay jox وقد سقاني فيصل الوزير كأس الشراب وهو بي مسرور لكنما الشيخ التجاني حضر معي وما أحب بسي درارا باي منا ما عندي توقف فيصل بابو صاح وزير لنك بورني من ما يجوخ أي كاس مينان مملني باي دف كو يرمون بابو كو إيغل جلم نك من واي شيخ التجاني دفا تيوغ من نما بو في جوخي مبوت بو في جوخي دو في بو جوخ moo tax ku nekk la nga moom rek la lay jox waaye nag ku nekk am nga ci bàyyi dara ku nekk rek am nga ci bàyyi loo mën a tiitaroo lu tax nag imaam Suyuti nit ñëw na ci moom ne ko ta damaa bëgg nga dimbale ma ci buur bi dafa am problème mu ne ko problème yi may réglé ci gis yonent bi moo gën a rëy sa problème bi te ragal naa gis buur yonent bi iiruma waye xam nga kiy gis buur bi te fekk yaa ngi xemem ci buur bi bokkut ak ki nga xam ne dafay wax ne alayka salaatullahi wa salaamu salaatan biha tusqil muluku xadaaiqi maa ngi julli ci yonent bi julli goo xam ne buur yi nañ ci roose sumay jardin yi mooy buur yi liggéeyal ko rek te buur yi dañ ko daan liggéeyal buur yi dañ ko daan liggéeyal ndax seen àddina googu moom jëlu ko ñaari misaal lay joxe benn bàyyi ko nettali bàyyi na te li ci àngale xadis mu ne dafa aji saawut éviter leen reer ñuy waxtaan bàyyi waxtaan ba indi ci waxtaanam xadis yonentu bi sallallahu alayhi wa bi wax ne allahuma man wallaytahu amran min amri ummati fa shaqa alayhim allahuma shquq alayhi neew yàlla koo méngale dara ci sama mbiri xeet wii mu diisal ci seen kaw yàlla nga diisal ci kaw kooku bàyyi mu ne ñu dem ba mu ne ñu dem ba suba buur bi buur bi ooluwaat ko mu ñëw buur bi ne ko waaw ndax xadis ji nga ma nettali démb bu xadis wér la bàyyi na ko xadis ji wér la kay mu ngi ci sixaaxu sunnati buur bi ne ko njàq rek xadis jooju moom ma teree nelaw démb te borom xam-xam am na ay xadis yu neex yoo xam ne mën na koo wax buur mu kontaan waaye dajeeg buur bu mel ni saawut di ko wax lu muy jàqee ba du nelaw guddi kooku xam nga ne addinaay buur bi journée moo ko tax a jóg bàyyi ne waaye moom it loolu la gën a yaakaaral buur boobu xadis yonantu di ko jàqaloo ba nelawul guddi yéenay liggéey fay baay bi ci ji baraxam Kossy TV am ngeen jarama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey fay du baay bi ci barxama ñu ngi leen gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla jox leen